asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna salaamaaleykum cheikh amee internaute de la Médina TV yéen ñi nga xamante ne yéen a bëgg yéen a wóolu yéen ay safoo li nga xamante ne kon moom mooy Médina TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di amaat mbégte ak contentement jàkkaarloo ak yéen comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey nag ñi ngi ak le grand bu wala le grand saltigué ki nga xamante ne nee naa la kenn dootu ko présenté ci wàll yi nga xamante ne ci lay yëngatu muy le grand saltigué Serigne Mouhamadou Diop dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ak ñi xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan su ko defee ñu suñu waxtaan euh, sëñ Mouhamed le grand saltigué ñu ngi lay nuyu di la ziyaar bismillah alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wa radiallahu taala an ashaabi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ajmain wala hawla wala quwata illa billahi al aliyul azim ñu ngi leen ñi fay nuyoo di leen wax bismillah Euh, comme ñu ko waxee woon rek ci njëlbeen dañ koy door ak rek li nga xamante ne moom mooy ñaan nee naa leen le grand saltigué euh, Mouhamed Diop miin ngeen ko ci li nga xamante ne moom lay yëngatu muy wàllu ñaan ak lépp li nga xamante ne rek moom la ëmb waaye sëñ bi dañ koy dooree rek ci wàllu seet ndax ku wax seet xam ne bëri na ay façon te it bëri na façon bi nga xamante ne nit ñi noonu lañ koy defee waaye yow yaakaar naa ne sa xam-xam ak sa sa xarañteef ci wàllu seet moom euh, kenn dootu ko la ñu bàyyi la rek nga ñëwaat ci naka ngay seen xeetu seet ngay seet xamante ne tey am na loo xamante ne lënt lënt la si dundam euh, bëgg mu leer euh, nan ngay jëflante ak moom. waaw alhamdulilah dinaay wax ne kër boo fay dugg da ngay jaar ci buntu kër. Mm-hmm. buntu ñaan yàlla nag buñ ko wax mooy seet. Mm-hmm. seet nag bëri ay paso dina am ñoo xam ne danañ ñi seet ci petaw am ñi seet ci ndox mm-hmm. am ñi seet ci suuf am ñi seet ci leneen wala yoote yi nga xam ne mooy mag ñi dañ ko daan samp ay bant ñun nag li nga xam ne mooy cosaan ak seet di ilmu ramlu man ci loolu lay seetee. Mhm. di ilmu ramlu di xam-xam boo xam xam bu ràññeeku la. Mhm. di fukki buntu ak juróom-benn buntu ba ca njëkk di bintu nafs kasbu aba ummahat iqwaan mhm. nga am saqam am tariq am safar am mawt am izza am raja am aada am saail am masul am aqibatul um amr ramli nag boo tombee da nga gis ñeenti tomb ci kaw moom la ñuy wax basdahun baala ak za ak daa ak xaa baa bi mooy signifié bopp doomu aadama bi za bi mooy signifié dënnam daa bi mooy signifié biiram xaa bi mooy signifié tànkam mhm. moo lay war na nit boo ko ci seetalee ci ilmu ramlu atta ramlu bi ci boppam moo lay définiral kii ngay seetal ci lan nga ko war a digal ci sarax bu ko defee rek ay situation baax mhm. ramlu bi ci boppam mooy mooy dem ba moo lay définiral kii ngay seetal lii nga ko war a bindal ak lii nga ko war a defal pour aajo faju faju mm. boo tombee tamit danga am taxt danga am naxs da nga am daaxil da nga am xaarij danga am inkiis da nga am naxs yooyu nag di xeetu xam-xam boo xam ne amul benn mbindeef boo xam ne dana la dikkal ci seet nga seetal ko ci te doo gis ay mbiram mm-hmm. di ci gàttal yonentu yàlla Idris ci moom la ko yàlla wàccee ba ko yàlla wàccee ci moom Jibril la yebal mu wàccee ko ci kawam ba ko Jibril jàngee ba pare daf na ko dama bëgg nga seetal ma Jibril fan la nekk ci alam bi mhm. Idris ba mu tombee daf na ko fii may wax ak yow Jibril soru ma di xam-xam boo xam ne amul benn mbindeef boo xam ne da ko ci seetal te doo te ko gis man nag dinaay wax ne ma ku ma ci yem képp koo xam ne dikkal na ma ci la ma lay seetal moom day méngoog la nga may mhm. euh, bi tey bëgg naa xam ndax bu ma bëggoon seetlu tey wala kenn a ko day toog nga seetal ko daar daar wala da nga naan ko jox ma sa tur jox ma sa tur yaay après ma woo la wala day bàyyi quelque temps après mu woo la itam. waaw fekkee da ñëw fekk jàpp ma sa tur laay soxla ak sa nit li tax buñ lay seetal ñi mën laa laaj sa turu yaay xam nga jigéen rek. moo mën a waat ne damaa jur sama doom jigéen rek moo war a waat ne moo jur doom ji moo xam doom ji dudd na ci yoon wala judd wut ci yoon waaye jigéen rek moo mën a wax dama maa jur doom ji moo tax nit bu ñu lay sa tur sa tur ak sa turu yaay ak âge bi nga am. fekkee da nga ñëw joonu joonu boo toogee dama la koy seetal léegi fekkee da nga ma oo tamit su ma jàpput dama la koy seetal joonu joonu su ma jàppee dama lay wax bàyyi ma sa tur ak sa tur yaay su paree dinaa ko seet te ma ko seetee tamit la ma lay wax moom day méngóog exact la nga may seetloo seet moom aw ba ku ma ci yem ak ci mim réew bu soobee yàlla. ayca am na solo sëñ bi waaye ku wax seet rek comme ni nga ko waxee tey jii bu nit di gëstu ay mbiram ak ci lu mu munti doon rek ba mu leer ko itam nañ ko génnee loo ay sarax parce que itam jamono tool na foo xamante ne jafe-jafe yi bëri na na lu ne sëñ bi tey boo ñu doon yaatalal rek ci sarax ak doomu aadama njëriñal sarax ci nit koy dund. waaw danaa ko gàttal ci ñaari xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne moom la yàlla yónni ci moom muy suñu roykaay mhm. dafa wax ci benn xadis bu njëkk na as-sadaqa tam na ul mawtu suu'i watu vakku balaa mun a sarax dina fekk dee bu ñaaw bu waroon a ñëw ci yéen te dana leen fegal ay musiba ak i balaa mhm. beneen xadis bi mun a maa naqasat sadaqat min maali wa ma zaada allahu abduhu afwan illa rafahullah mun a yàlla du wàññi alali jaam bi nga xam ne dafa jël alalam di ko saraxe day jàpp ne daf ci daf ci am wàññeeku yàlla mun a loolu doo ci jëlee ak yonent mun a lool doo ci jëlee ak wàññeeku lu dul jaam ba koy def yàlla dana ko dolli ginnaaw dolli gi mu ne yàlla dana ko jéggal ginnaaw jéggal gi mu a yàlla dana ko jéggal dana ko yëkkati ay daraja mm-hmm. sarax nag yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ne su ma bañutoon a soroñ sama xeet wi kenn ku nekk 365 cër mu ngi ci cëru doomu aadama bi te heure boo xëyee cër bu nekk war nga koo génneel sarax. Mhm. sarax soxna si. Mhm. di nga gis nit koo xam ne tey dafa waroon a xëy dee mu xëy génnee benn mbuusu benn mbuusu suukar yàlla fekk fanam. Mhm. am na koo xam ne tey jii bu xëyoon dafa waroon a def soog. mu xëy génnee benn mbuusu ndox mu sedd wala benn kilo mburu yàlla fekk aw fanam. am na koo xam ne mënoon naa nekk ci ay tolof tolof nekk ci ay musiba nga jox ko mu sangu ba dee nga digal ko benn sarax mu def ko yàlla dékante ay mbiram sarax nag am na ñoo xam ne ci aada aada am na ñoo xam ne warun tuur am na ñoo xam ne warun génne groupe bu xonq am na ñoo xam ne warun génne lu weex waaye sarax daal dinaay wax ne nit mën na nekk ci jafe-jafe nekk ci ay problème yoo xam ne nekk ci ay xat-xat yoo xam ne nga daje ku xam waxuma ku xamu ku xam mu digal la benn sarax nga def ko rek yàlla ubbi say mbooloo mi buntu xéewal ak teraanga ayca am kon mu mel ne sëñ bi sarax lu am la ci dundu doomu aadama waaye ndax nit ñi xam nañ kenn ku ci nekk sarax bi nga xam ne moom nga war a génnee des fois itam am ñoo xam ne peut-être sarax yi ñuy génnee eh, seeni rawaan bugg ko wala ñu génnee sax sarax yoo xam xamante ne amaana liñ bëgg du leen ko yombalal leneen da leen di gaañ wala mu leen di lor ndax nit ñi xam nañ uh, daraja bi nga xamante ne sarax am na ko ci dund doomu aadama. waa am na ñoo xam ne feek ñi ngi génnee soow ñi ngi nekk ci ay difficulté nekk ci ay problème hmm. am na ñoo xam ne feek ñi ngi ray duñ jug ci problème duñ jug ci jafe-jafe am na ñoo xam ne feek ñi ngi génnee groupe bu xonq duñ jug ci jafe-jafe duñ génn duñ jug ci problème hmm. léegi nag loolu foog nga daje koo xam ne dafay xam sa tabia xam sa biddiw xam yow sa tabia ci ban xeet nga bokk parce que nit koo gis yi dana ci bokk benn mu nekk ci ndox wala mu nekk ci ngelaw wala mu nekk ci suuf wala mu nekk ci safara mhm. kooku nag dafa war a am li nga xam ne moom mooy saraxam tabia ba mu bokk mooy tax ne lii bu ko génnee dafay nekk situation yu baax ci yeneen yeneen li safaan bi bu ko génnee dafa du jug ci difficulté du jug ci problème léegi nag loolu nit ki individuel moom mënu koo xam foog mu dajeek sëriñ boo xam ne dafa xam dëgg-dëgg baatin xam dëgg-dëgg lan mooy ilmu nujum xam tabiat doomu aadama xam kawkabu sayaara xam lépp kooku nag boo dajeek moom bu la digalee sarax boo ko defee rek doo ci am problème waaye nag fekke yow individuel bi ko def te lii nag xamoo ndax sa na ko xamoo ndax sa rawxaan na ko xamoo ndax li nga ànd ak nangu na ko nga dem génnee loolu kooku doo jug ci jafe-jafe wala doo jug ci sa mbokku ñaankat yi am nañ ci part de responsabilité parce que de euh, man bis toog naa ak benn kilifa euh, mu ne ma dafa gis kenn ci yéen mu def vidéo ne ku bëgg tukki génneel lii ak lii ak lii te nee na loolu mu génnaloo pour kuy tukki ku ko génnee amaana boo doon wut këyit sax doo ko am. wax na dëgg am na ñoo xam ne tey bu ñu tukki nga ne leen génne leen gerte. buñ demee duñ tukki wala ci tukki bi yëpp ci problème lañ koy nekk wala la ñu dem di ko uti buñ ko demee ci problème la ñu nekk hmm. am na ñoo xam ne ñu tukki nga ne leen ut leen bokk ngeen génneeku buñ demee tamit ci ay problème la ñu nekk li ma la wax léegi mooy tënk mbir mi nit ku nekk dafa am xeet ba nga bokk xeet ba nga bokk nag toujours lay saraxam boo ko defee da nga nekk ci bànneex da nga nekk ci naataange da nga nekk ci xéewal waaye am maa safaan ba nag boo ko defee doo jug ci ay problème doo jug ci ay xat-xat doo jug ci ay jafe-jafe hmm. leneen loo jugee rek da ngay daanu ci lu gën a métti te loolu nag il faut nga dajek koo xam ne dafa xam baatin dëgg hmm. dinaay wax ne baatin xam ko dafa am solo te gis nga képp koo gis mi ñaan yàlla di wax. Mm. te mënu laa indil aaya alquran mënu indil xadis. Mm-hmm. jàppal na booy jàpp. jàppal booy booy bàyyi bàyyil kook waaye booy jàpp jàppal ki nga xam ne bu waxee dana la indil dalil si sunna indil la dalil si xadis parce que loolu mooy xam-xam xam-xam mënta génn xaala laaw xaala rasul mm-hmm. ayca am na solo saltige waaye rek dinañ wax itam ci li nga xamante moom mooy kaaraange da koy aar ndax jamono moo toll foo xamante euh, bi nga xamante doomu aadama war na koo am pour mën a am dund bu tranquille tey ji mu mel ne rek am nga ci xam-xam bu doy waar boo xamante ne yaa ngi koy jëflante ak nit ñi. waaw dinaa wax ne doomu aadama lépp lu man di am ci kaw suuf am kaaraange moo ci jiitu. Mhm. parce que tabax bi sax bu demee ban man cee toog ba mën a teg ci kaw. Mhm. mooy kaaraange gi moo tax mooy fondement bu ci suuf mooy kaaraange ba nga xam ne mën ngaa teg deuxième ba troisième ba quatrième. nit lépp lu mën di am am ci kaaraange moo ko gën man nag dinaay wax ne am na kaaraange yoo xam ne danaa koy liggéey bu ci jiitu mooy téere bii ngay gis. Mhm. téere bi ci poos lañ koy def. bi mhm. bis bu xasee nekk ci sa poos. Mhm. ci diggante asamaan ak suuf képp ku la ci liggéey mu jàpp ma xàcc ci yoonu sëriñ. te képp koo xam ne jéemal na la dara. danañ ko jàng fukki xulu ak benn fukki xulu ak benn nag kuñ ko jàngal mooy ku dem baaqiya <laughs> beneen bi nag am na ci boo xam ne buñ koy liggéey mhm. ci ñax yoo xam ne dafa nekk ci biir armeel mhm. ci diggante timis ak gee nga koy jënd jëndee ko ci biir armère yi bu ñëwee ñax boobu da nga koy booleeg doomu balu fetal ak benn tobb boo xam ne du ma ko tudd parce que sama mbokk yi nangu ñoo jàng mhm. boo koy sangoo ci cin nga koy sangoo danga nga koy baxal ba mu bax nga xent ndox mi génnee ñax mi jël sunguf bi ak to sungufu doomu balu fetal bi ak tobb boobu nga def ko ci biir nga sangoo ko soo paree nga jël ñax yi delloo ko ci armel gëñ naa ci sama turandoo mhm. képp ku la jug liggéey la fa nga jëlee ñax yi delloo ko fa bu la liggéey ko fa delloo mhm. te diggante asamaan ak suuf nit ku yàlla bind mënulaa jàpp am na ci yeneen yoo xam ne tamit ci sump yoo xam ne dafa sax daju sump yu sax ci biiru armel lañ koy liggéey mhm. ak yeneen ak yeneen man dinaa wax ne kaaraange képp ku ma ko jox sama kaaraange nga mhm. fexe ba sangoo ko mhm. bul laalati benn garabu sëriñ te képp ku la song dana narmeelu ak kum man ci doon kaaraange bu ne dégg naa ko waaye bii musuma kaa dégg parce que ceddo la yëfi ceddo la parce lii ma lay wax man dëgg la parce man xam-xam gëwuma ci ndono mhm. man xam-xam jàng laa ci jëm mhm. parce que juriste bi nga xam ne xamul lu dul opérer bu génnee àdduna doo dem ci doom ji mu lay opérer nañ waxante dëgg mhm. mécanicien bi nga xam ne dafa génn àdduna doo dem ci doom ji di ko jox sa oto bi bu kuulee yaa ko def sa bopp xam-xam jàngaa ci am te lii ma lay wax xam-xam yu wér la man kaaraange dinaay wax ne dama cee toog dama cee toog képp koo xam ne defal naa la kaaraange ci diggante asamaan ak suuf nit kii nooyi am ruux am bakkan mënulaa liggéey mu jàpp mukk te lépp lum la man di def dana dellu ci kawam lu gën a sedd ci ay mbir mbiram mooy paralysé bu paralysé wut dañ ko jàngal fukki xulu ak benn. Mhm. ayca yaakaar naa ne loolu leer na nañ te itam ñi nga xamante ne ñi ngi teelu rek eh, dinañ ci taxaw bu baax a baax ndax jamono moo toll foofu waaye sëñ bi rek eh, du ñu ñëw itam te waxuñu ci li nga xamante ne moom mooy wàllu ubbeeku ndax am na ñoo xam ne dañuy investi si dara eh, du dem nga gis ñoo xamante ne dañuy am envie liggéey am envie yor place bëgg doxal mais seen lépp day tëju. nga gis ñoo xamante ne dañuy xëy problème mu cent sax duñ ko mën a am wala duñu lijjanti dara mu dëgër wala luñ laal mu nekk ak luñ yaakaar mu tas loolu tey ki nga xamante ne mi ngi ci situation boobu lan lan la mën a xaar ci ki nga xamante ne mooy yow dëgg la dooguma la sax comme li nga wax loolu nit ñi dañoo soxor nit ñi bëgguñ ko avancé boo avancé ñi ngi lay xeex ñi ngi lay def lu nekk moo tax nag nit fu mu toll war na ut kaaraange. Mhm. dinaay wax ne comme li nga wax doomu aadama boo xor ci benn doomu aadama dundam ñett la. Mhm. benn da ngay dem ci kanam ñaar la sax benn da ngay dem ci kanam. Mhm. wala nga dellu ci ginnaaw waaye taxaw benn place moom amul. da ngay dem ci kanam wala nga dellu ci ginnaaw. te mm. nit koo xaar ci xolam nag dem ci kanam la bëgg dem ci kanam mënoo koo am lu dul ci buntu ubbeeku. ubbeeku nag dafa bari façon am na ci boo xam ne dañ koy liggéey bu buñ la koy jox juróom-ñaari karnaar lay ànd ak parce que te laa la wax xam-xam yoo xam ne doo ko dégg feneen. Mm-hmm. juróom-ñaari karnaar lay àndal booy sangoo saafara bi karnaar yi da koy dugal ci biir waaye yëpp day tëj ànd ak caabi gi. Mm-hmm. heure boo sangoo da ngay tijji benn karnaar aj ko fu mm-hmm. boo sangoo da ngay tijji beneen karnaar aj ko fu kawe mat nga jël karnaar yi dem sànni ko ci géej mhm. mosoo gis géej gu ngàcc mhm. da nga wax ne ndox mi wàññeeku ne waaye gis gu ngàcc matoo koo gis mhm. képp koo xam ne sangoo ko ba jël karnaar yi sànni ko ci géej bi ni nga xam ne duusu géej yi noonu lay dóoree sa wërsëg yi noonu lay ballee di ñëw ci yow wërsëg ak alal dana la dikkal ba nga jaaxle ne man alal ji fan laa ko war a mën a jëlee ñi duusi di dóoree mhm. noonu lay alal di ñëwee ci yow te alal dalay yomb te bunt boo mën di fëgg tamit bunt boobu yàlla dala koy ubbil mhm. amma bii bii nii da gis ne mooy cangati fukki fan bi mhm. bii juróom-ñaari garab yoo xam ne garab yi seen meññeef dañ koy lekk bu nekk moom la ñu ut xob yi bu buñ ko jëndee ba pare am na lu ñu koy jëndee garab di laaya yi nga xam ne moo nekk ci mhm. ko kaasee ba pare ñu la ko bii moom ba mhm. boo ko sangoo képp ku la doon dimbale sa aw askan yow yaa koy dimbale te kenn mënta fexe doo ubbi da nga ubbeeku ba àdduna yépp xam ne ubbeeku nga na solo sëñ bi yaakaar naa ne ubbeeku moom ñëpp la yitteel ndax kenn ku ci nekk rek jamono fi mu toll ak ni méttee ñaan nga yàlla say mbir saawaan baawaan waaye sëñ bi rek dañ ci toftal li nga xamante mooy wàllu rab rab tamit nekk loo xamante ne solo sonal na waxuma sax Sénégal mais àdduna ñu euh, bëri ñu ngi koy gis bokk na ci ay AVC bokk na ci jékki-jékki rek ay malformation euh, koo xamante ne day jékki nekk dara du ko jot euh, nekk jigéen rafet jékki rek di juga ko daanu ñu ne rab moo ko sonal mën nañ xam rab lan lay def ci nit ak généralement lan mooy tax rab di dugg nit tamit waaw rab dafa am ñaari façon am na boo xam ne rabu cosaan la la comme boo demee ci suñ ceddo gi wala nga dem ci lébu yi dañ doon am ay xàmb yoo xam ne ay tur la yooyu ay rab la comme jamono dafa dem ba technologie avancée man su ma jàngee nekk bureaucrate sama rabu maam yooyu su ma ko fonkut di leen négliger man neen maa sonal am na rab boo xam ne tamit dafay topp nit rab nag di mbir moo xam ne mbir mu doy war la da nga gis jigéen mm-hmm. mel nu war a mel rafet mm-hmm. jekk te góor gu ñëw dem góor gu ñëw dem mm-hmm. loolu nag rabam dana ko fiire ba nga xam ne góor gu ñëw da ngay dem da ngay dem da ci biir néegam dugg ci duur duus surbe boppam ba yëg bànneex moo koy gënal mu jaxasoog jaba soxnam mhm. loolu nag rab dina ko def mhm. rab dana la xaptal nga yor alal léegi mu xaptal la nga yàq ko rab mën na dugg nit def ko ABC mhm. rab mën na dugg nit mu nekk ci kër gi ku wax ak moom mu teg ci mu def ci kaani wala ku wax ak moom mu def ci ko poobar bu ko defee nit ñi naan dafa reew dafa reew rab bee koy def wala mu nekk ci kër gi ba jant bi so du génn néegam du bëgg wax ak kenn fu mu toll xolam dafay tàng xolam dafay naqadi ku wax du la faale wala ku wax mu jàññ la ñu jàpp na dafa reew dafa fekk na dafa yor rab rab nag mën na dugg nit tamit ba tee ay cëram mën na téye jigéen ba du mën a am doom rab mën na téye góor nga am soxna jugal war a dem bay àgg ci moom eh, rabu soxna si dóor sa ndigg ba dootoo mën dara. Mm-hmm. boo génnee yëgaat sa bopp boo ñëwaatee ci soxna si dootoo yëg sa bopp. Mm-hmm. rab nag man dinaay wax ne du ko faj. Mm-hmm. man du ma faj rab. faj mooy sama bopp di métti ma jël paracétamol naan ko mën naa tëddal léegi yeewaat bopp bi déclenché man rab dama koy sepp ci nit sànni fële. sëñ bi ñëwaatal foofu. ma ne man rab. Mm. man rek ci ngay dégg ci sëriñ boo xam ne. Mm-hmm. man maa lay wax na man du ma faj rab. Mm-hmm. man dama koy seppi sànni. tàqalikoog rab carrément tàqalikoog rab carrément. Mm-hmm. ci une semaine. la ma la une semaine rab bu mu mënti doon man rab une koy faj. ki ko judduwaale ak kim dab. ku ko judduwaale kum dab képp koo dégg maa la mën naa faj rab ci diir bu gàtt mënu ko man rab ci une semaine koy faj. képp ku ko am une semaine. ci une semaine. une semaine nga tàggalikoog moom la ma lay jox nga sangoo ko guddi gu nekk boo génnee suuru ak biteel bii xam ne moom nga koy raayoo fekkee tubaab bu ñuul nga <laughs> bëggoo sangu biteel bii guddi gu jot nga raayoo ko ci une semaine nga tàqali kook rab mhm. waaye nag am na ci leneen loo xam ne moom da nga koy sangoo une semaine bi heure boo sangoo suuru ak cëw digga nga xam ne da koy takk sa ndigg mhm. une semaine rab bu mënti doon nga tàqali moom bu mhm. kër ga amoon rab sax nga def ko fa kër ga dana kër ga rab dana tàqali kook moom man am na ñoo xam ne bu ñu ñëw fii dañ leen a Hmm? cuuraay ba ma leen jox ñu suuroo ko dañ koy suuroo commencé ximbali une semaine ñu tàqali ko rab hmm. am na ci koo xam ne nee na ma fukki at góor gu ñëw dem góor gu ñëw dem keroog ba ma ko joxee cëw di gi semaine lañ ci teg ci beneen semaine bañ ci dugg góor ga ñëw bëgg ko hmm. ba mu ñëwee matu jatti fan mu takk rab baa dem kookoy saltige Mouhamed Diop euh, preuve lay joxe noonu nee naa leen ku ko mën ak ku koy jéem du ñu benn su ngeen ko soxlaa rek numéro yi dina jàll à bas de l' écran pour yéen ñi nga xam ne yéen a ay service am waaye sëñ bi eh, dinañ wax itam ci li nga xam ne moom mooy cat ndax cat bëri na lu muy yàq euh, tey nit dina xëy alalam di di yàqu di yàqu di yàqu ba jeex mu naan dañ maa liggéey euh, du comprendre sax alalam lan moo ko yàq alors que cat moo koy def cat dina dem ba nit ki maanaam gàttal fanu nit cat li mu mën a yàq nee nañ nit dem di la liggéey sax nit catu la moo ko gën a bon parce que li ci nekk moo bëri tey ki nga xamante ne cat da koo jàpp wala ki nga xamante ne dafa bëgg bayre mu ñëw seet si la tey wala tey mu bëgg tey xam ban yoon la war a jaar pour tàqalikoo ak loolu lan nga ko mën a jox. wax nga wax ju am solo te bàyyi woo ci xel. Mm-hmm. te sëriñ su bëri dañu jaawale kuñ liggéey ak kuñ cetu. Mm-hmm. xam nga doomu aadama mën neen koo cetu ba buntam yëpp tëju. Mm-hmm. mu jàpp ne dañ maa liggéey rek dem ci sëriñ bu xamut mu lay jox li toj liggéey mu lay jox li toj da ngay sangu ba sonn doo gis dara. parce que cet ak tëju dañoo dañoo xaw a ndey waaye bokkun bàyyi. dinaa la wax yonent bi sallallahu bu daan sol dàllam dafay sol na bismillah iyaaka nahbudu sol tànk droite bi mu ne bismillah wa iyaaka nastainu sol tànk càmmooy bi benn saxaaba na ko yaa rasulullah loo jublu ci lool mu ne ko damay muslu ci cat mhm. yonent bi na ko fekkee am na lu mën a jiitu ndogalu ndogalu jaam bi ci yàlla fekkee am na lu mën a jiitu ndogalu yàlla ci jaam bi mhm. mooy cet mhm. yonent bi sallallahu tegaat ci na bëri na gàtt bu dee ceta ko yóbbu mooy tey yow ji nga ànd ak sa doom ci daral bi tabaski jot ngeen jënd xar mu ne la maman bul jënd bii jëndal bii moo gën a duuf jëndal bii moo gën a duuf moo yóbbu gàtt bu barsax mhm. parce bañ na bu ko jënd boobu cet bana fa waaye jëndal bii moo gën a duuf moo ko yóbbu barsax mhm. soxna si am na nit ñoo xam ne tey boo doon fondement kër ban romb ci ba seen làmmiñ tudd ko birig dootoo ko teg mhm. am na ñoo xam ne tey boo sañse woon di dem ci xew ñu ne la a ah, diw li nga sol rafet na balaa ngay àgg fa nga jëm ñi catu la balaa ngaa àgg fa nga jëm da nga accident parce que mhm. yontu bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci benn xadis inna allaha tantaliqu ala alsinati bani aadama bi ma fil mar'i mhm. min al wa wasar mhm. am na làmmiñ yoo xam ne ci gàttal ci xadis bi am na làmmiñ yoo xam ne lépp luñ tudd rek dafay nekk ci loolu cat nag man ala kulli xaal dama koy dindi ci bam set wecc mhm. ci li ma koy dundee mooy paaka bu bees bu mosta dem fen mhm. ak ginaar bu weex mosoo gis ginaar bu cet jàpp ginaar foo ko tuddee yëlëbu na mhm. ci ginaar bu weex ak juróom-ñaari paaka yu bees ci laay dindee cet fekkee da nga ko am ci laa koy dindee fekkee amoo ko timit am na luñ la ci liggéeyal nga sangoo ko cet dootu la jàpp ba ilaa yawmi din am maa ci bayre bayre dinaay wax ne képp ku ko ñàkk pour nga lijjanti dara mu sotti dafay xaw a jafe comme janax ba mu ñëwee ci sëriñ bi na ko ñaanal ma ma am bayre sëriñ bi ñaanal ko rek mu génn dajeeg muus muus nar koo lekk mu dawaat ñëwaat ci sëriñ bi ne ko teg ci kaaraange mm-hmm. parce que boobu am na bayre génn muus nar ko lekk mu ne ko teg ci kaaraange moo tax bayre ñun képp koo xam ne dañ la koy liggéeyal dañ ciy teg kaaraange lii ngay gis biteel bii pour bayre la mm-hmm. bii bayre la ci nit bayre ci nit kiy jaay mm-hmm. képp koo xam ne da nga yor sax di ko wis sa place xorom sax boo ko doon jaay nit ñi ne dañ la bëgg bu soobee yàlla te bayre bu ma lay liggéeyal nag dafay cëslaay kaaraange ay ci sëñ bi am na solo waaye rek eh, tamit dinañ wax ci li nga xamante ne moom mooy wàllu këyit gis nga fii situation Sénégal toll daanaka xale yi ñu ngi jaar sax yoonu géej gi di dem Nicaragua parce que ñu bëri mënuñoo am këyit da ngay yor sa xaalis dem déposer papier mais pour ñu may la visa des fois day xaw a metti xale yi di jaar yoon bu nekk tey man mi nga xamante ne maa ngi fii bëgg a tukki eh, bëgg am bu gaaw rapidement samay këyit wala itam ki nga xam ne sax mi ngi Europe yàlla def na dem na ba yegg eh, mais mënagul am ay këyit pour ñibbisi wala sax yenn jafe pour liggéey ci yenn entreprise yu mag yi euh, muy ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa diaspora bi lan nga leen mën a euh, wax tey loo xamante ne mën naa yombal seeni mbir. waaw fekkee ki nga xam ne moom dafa nekk ci réew mi di déposé visa bëgg a dem loolu lekket bu bees ci laa koy liggéey ak passeport am ak 129 doomu tàndarma yoo xam ne daf koy indi ak benn tembour su ma ci liggéey li ma lay liggéeyal jox la ko nga dem ambassade boo mënti déposé da nga am visa kooku moom du ma ci yàggal sax ambassade boo mënti déposé duma ma joxe visa waaye dinaa tamponné ambassade boo mën di dem di nga am visa bu soobee yàlla. fekkee danga nga nekk bitim réew nag la ma koy liggéey mooy journal bu gën a siiw ci dëkk ba ngay dund. Mm-hmm. comme fekkee fii man nga jël L'Obs wala leneen nga jël journal bi nga xam ne moo gën a siiw ci dëkk ba ngay dund. la lay jox nga boole kook journal boog ak juróom-ñaari xobu garab yoo xam ne dañoo nekk ci dëkk boobu bis boo ko sangoo bu ñu doon may ñaari nit wala benn nit bu soobee yàlla loolu yow yaa koy jël kooku moom kayit moom dama ciy wax ci buntu faama bi nahmat rabbika wa fadis mosuma cee jëflan technique am ci gàcc képp koo xam ne kayit moo mosa doon sa problème fii ci biir réew mi ak bitim réew nga wax ma ci bala ma la ciy wax ñi jëflante ci bu soobee yàlla moom da nga dem ak a ñëw te dootoo am benn problème kayit moom yàlla daf ma cee teral ba wax dëgg yàlla moom dama ci ci buntu sant yàlla moo tax duma ci yàggal képp koo xam ne sa problème boo ñëwee dama ko am fekkee ci biir réew mi nag soxla ay kayit mënoo koo am koo timit boo ñëwee timit am na ci beneen façon boo xam ne moom lañ koy ja moom lañ koy jaaree ci suufu penc ak suufu juma ak suufu marché ak lañ lay jox nga àndoo ko bépp këyit boo mën di lijjanti bu soobee yàlla da nga ko am incha allah. aja am na solo sëñ bi te leer na waaye itam rek euh, ñaanu jëkkër ak doom moom yaakaar naa ne ñu koy wax ci réew mi bëri na waaye résultat yi nga xam ne yaa ngi ko ciy def gisaguñ ko fenn mu mel ne rek euh, téye nga ko sa loxo ki nga xamante ne bëgg naa am doom sëy na musul am doom ki nga xamante ne dafa taxaw taxawaay bu yàgg wala jigéen ji nga xamante ne comme ni ñu ko waxee saa su nekk rek euh, toll na ci benn âge bëgg am borom kër da gis nit day ñëw wax ba pare dem doo ñëwaat des fois nit day day nekk ak nit ba mu jox ko kàddoom mu jékki-jékki dootu ko gisati wala des fois sax yow muy jigéen sax nga joxe sa kàddu ba waa ji war a ñëw nga jékki-jékki dellu ci ginnaaw tey euh, jigéen bu tollee ci situation boobu wala ki nga xamante ne bëgg na am doom sëy na euh, deux ans trois ans taxaw mënul am njaboot kenn doomit da doon am doom jékki-jékki toog benn temps mënatula am doom ñooñu nekk si situation boobu tey bu ñu la ñëwee seet si lan lañ mën a xaar si yow alhamdulilah fekkee ci wàllu doom moom yaakaar naa ne euh, ci biir réew na ñu ci bëri ñu ci xam sama Afrique nga xam ne moom laa gën a miin ak zone Europe bi te bari naa ci ay trondo jigéen bi nga xam ne dafa të am doom axtikulisi xaq xaq wu parce que man sama lépp dama koy teg ci sunna ak ci sariya ba docteur xool la gis na la amoo fibrome war nga mën a am doom te amul benn cause bu tere nga war a mën a ñàkk am doom yépp ba gis na ne war nga mën a am doom nga ñëw ma jox la la lay jox boo koy lekk da ngay ut dara bu weex tàll nga lal ko ci digg laal bi ut ginaar ak tëng ginaar ak tëng nag buñ ko waxee mooy ginaar bu jigéen bu weex saafara ba ma lay jox moom ngay toggee ginaar bi soo paree nga lal dara bu weex ci digg lal bi nga lekk ko yaag sa borom kër am na beneen saafara bu ma lay jox nga naan ko loolu moom amul demal ma dikk képp ku ma ko man di jox ngeen lekk ko ci guddi googu ngeen jaxasoo yaag moom bii soxna si jug di jugaale ëmb. Hmm? li ma maa la ko wax. bi ñëwaatal ma foofu. li ma lay jox. sëñ bi est xam nga ne kër yaa ngi tas ndax ñàkk am ci société bi ñu dund la rek. xam mhm. nga africain dafa gëm na doom. ci sëy wareef la ci sëy. Mhm. te doom du contrat ci sëy. doom bonus la sëy sëy nawlewante la rek. Mhm. nawlewante la ak denc doom nag bonus la ci. waaye nag ci société bu ñu dund boo sëyee ci kër. benn at ñaari at ah moom de amul doom njëkk yi fii mhm. nday yi fii commencé fii moom demal sa yaay sa njëkkee si demal takki keneen demal takki ndàngam mhm. société bu ñu dund meew mel noonu mhm. dina dana dem ba nga xam ne xaw ma nu koy français di waxee dana euh, jaxase xeli ndaw si ba nga xam ne mën na ko yóbbee stress bu yóbbee ko stress mën na fa jógee ba am guwaatur bëri na da jigéen ñu dee ci guwaatur stress ak ak bu mënta am doom rek moo leen rey man nag dinaa wax ne maay dottooru loolu ah? fi dindi jaasir ak ay ma ne la amal doom taxaw juróomi at. Hmm. ñàkk la am doom nga ñëw. bu soobee yàlla dinaa ci am turandoo de. jeex na sëñ ay ay ay bàjjan yi am ci turandoo maam yi am ci turandoo. la ma jox daal nga boole ko ginaar rek tëng gu weex. ngeen lekkee ko lal dara bu dara bu weex tàll. Hmm. lii ngeen lekk ko. Hmm. ngeen pare ngeen naan saafara sax ngeen jaxasoo. bu soobee yàlla booy jug di jug jug ëmb. am maa jigéen bi nga xam ne nag dafa të am borom kër. li ma lay jox nga fuddanoo ko. Mm-hmm. sama fuddan gi képp ku ma ko jox. balaa fuddan gee raaf ci sa baaraam. <laughs> fuddan menn mi. man damay fuddan <laughs> dama sëñ bi da ngay fuddan saafara ba ma lay jox nga fuddanoo ko. Mm-hmm. balaa raaf ci sa loxo yi. di nga gis góor gu la takk ci kaw nag boo dàqewul wax ji day leer. sëñ bi nag gis naa fi rang bu nar a gudd de xale jigéen yéen a nar a songu nag. ak fi réew mi toll xale yow góor ñaa ngi jël gaal gi di dem fii dafay nar a manqué ak jëkkër fi mu ne. Ah, li ma la wax de moom moom ala kulli xaal boo ko fuddanee balaa fuddan gi raaf da nga gis góor gu taxaw na la dama laa bëgg a takk ci kaw boo dàqewul xam nga wax ji day leer mhm. xam nga jigéen mën na loo nit ci borom kër nga ñaanal ko ba borom kër taxaw mu ne kii jekkut ah kii mënumaa yor kii mënu naa ngam mhm. te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ida raaytu rajulu man tardaw diinahu wa xuliqahu fatazawiju bu ngeen gisee góor ngeen gërëm loo diineem mhm. ak jikkoom na ngeen ko seel parce que jikko ak diine dafa am solo parce que am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi yaa boo leen gisee yaa ngi leen ñi ñee ñi ngi fanaan ci ay soto ñi nga fanaan ci ay kii waaye heure bu ñu tëddee jooy la ñu bët set parce que mhm. jëkkër yañ am fitna rek ci la ñu teg am na ñoo xam ne nag amul dara waaye fuñ foree fukki dërëm mhm. éena neen la fukki dërëm yi fuñ foree mhm. dërëm éena leen dërëm bi waaye nag képp ku ci man di doon daal boo ñëwee bu ma la fuddanee da nga am borom kër ay ci am na solo di yi jigéen ñi am borom kër waaye bu ñu amee borom kër nag kàttan da ciy baax sëñ bi te kàttan nag lekk loo xamante ne suñu góoru Sénégal yi ñu ngi koy bëgg a rafle de bëri na ñu koy jàmbat rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale yi seen jabar yi amaguñu amatuñu satisfaction totale si ñoom euh, wala euh, course bi day gaaw a day maanaam daal prix dip match bi day gaaw a jeex tey ki nga xamante ne moom moo toll ci situation boobu sëñ bi kàttan moom dégg naa moom defandoo ko defandoo ko ak kenn daal. yemoonu ma ceeg kenn ci kaw suuf kattan de ku ma ko jox yaay dàq say xaj xam nga xaj mën na say une heure de temps du daanu. Mhm. une heure temps xaj mën na ko def du daanu. Mhm. te nag dinaa jël toujours waxi Omar Xays Omar Xays dafa waxoon ne jigéen ñaar la gën a bëgg ci àdduna. Mhm. benn bi bu ko ñàkkee mën na koo muñ benn bi nag doonal xutbu zaman doonal président doonal buur doonal loo man di doon mënu la koo muñal. kenn mënu koo muñ. jigéen man bëgg na alal lool bu ko ñàkkee mën na koo muñal góor. waaye am maa kattan amat privilège boo man di am jigéen mënu la koo muñal mhm. te góor nag buñ koy wax ci digg këram mooy mooy góor mhm. góor buñ koy wax mooy kattan mhm. képp te man li ma jaaxal léegi sama produit bi ñu ko fii ëpp ñu ko fi ñu ko fiy jël ay 30 ans ay 27 ans ay <laughs> ay 35 ans loolu rek ñoo ko fiy jël sëñ bi produit bi nu tudd ah produit de moom <laughs> sama benn góor gaa xam ne ba ma ko joxee daal. Hmm. góor gi moom daf ma waxoon ne ma del wax mbir mi rek. mbir mi daal. waaw mbir mi parce que mu ne ma tur bi dafa xaw a ci waaye del wax mbir mi. Hmm. waaye boobu moom dinaay wax ne xam nga sama mbokk yi moom lu ñu lay jox mooy yoo xam ne dañ koy boole benn kippi cinquante yi wala yeneen yi boole ko moom dëbb ko. Hmm. jaxase ko sunguf gi doo ko mën a xam man boo ko jaa boo ko naanee léegi mën na la def tension mën na la jox kattan force. nga sëy léegi waaye bu subaatee doo ko mën. man nag bii ma lay jox daf koy traité. bu naturel koy retraité waale. Mhm. te dafay dem am na koo xam ne su ma ba ñu a weer mën naa laa tegal audio bi. Mhm. daf na ma sëñ bi fukki at a ngi nii musuma tëdd fajar jugal waaye keroog bu ma jëlee sa sa garab gi ñaari fan lañ ci teg fajar ma jugal. te mhm. góor dëgg nag fajar fu mu jotee war ngaa jugal. mu ne ma ñaari fan lañ ci teg ma jugal sama garab na képp koo xam ne jox naa la ko. nga am problème yi kattan. Ah. boo ko naanee. Mm. boo xëyee. Mm. dana la tegal ndekki lu neex. góor goo gis ci borom këram ñi xëy di ko ci putoog di ko raas mm-hmm. guddi gi dafa neexul waaye bu guddi gi neexee mm-hmm. ci ndékkili rek nga koy xamee mm-hmm. teg gi dana ànd ak tagg dina ànd ak tagg dina ànd ak lépp man nag sama kàttan nag képp ku ma ko jox yaay dàq sëy xaj xam nga ku mën a sëy une de doo daanu yaay raw xaj bu soobee yàlla sëñ bi nga ne ma sama kattan ma ne la képp ku ma ko jox yaa raw xaj nit ñi xam neen ko. te kattan moo tax góor moo tax góor gi boobu dama wutal sama waa ji sama seex bi. moo tax góor gi boo koy xale fu ma jaar wutal ko <laughs> gi na ma neel doon del wax mbir mi rek. <laughs> man lu ma am xaj laa ko yéene wax jama wax jama ko waxoon dafa wax ko tuddee woon dafa xawoon a kii zaayru trop góor gi na ma del wax mbir mi. Mm-hmm. del wax mbir mi rek moo ëpp sutura mm-hmm. waaye mbir mi daal képp ku ko jël. Mm-hmm. sa mbir dana dox. te boo xëyee ndekki lu neex dana ko tegal ñi nga xam ne daal ñoom ñoom impuissance sexuelle mooy néew kàttan wala ñi nga xamante ne dañoo gaaw a daanu wala ñi nga xam ne dañoo bëgg awra bu dijj bu dëgër daal bu baax nañ ñëw seet ki nga xamante ne moom mooy saltige Mouhamed Diop euh, ci bi nga xamante ne comme ni mu ko waxee mbir mi muy produit bu naturel boo xamante ne lépp ba kii la arbre la plante ak herbe amul effet secondaire ayca mi ngi noonu ba tey sëñ bi ñu wéyal rek ak ki nga xamante ne itam euh, sàngara sonal na ko bari na woy jur yoo xamante ne euh, dañuy dund loolu dañuy am doom boo xamante ne day naan sàngara euh, tey da leen ni sonal fitnaal leen ñu ci bëri sax fu nekk la ñuy dem pour tàqalikoo ak mbir yooyu waaye dañ ciy am jafe mu nekk itam loo xamante ne ñu bëri boosté nañ ñu foofu noonu pour ñu wax ci parce que am na mu yitteel ñu bëree bëri ki xamante ne tey dafa dafa dafa dafa am vise boobu di naan sàngara tëw tàqalikoo ak moom waaw alhamdulilah dana dal ñu bari am na ñoo xam ne dañ leen koy liggéey xeltal leen ci sàngara ñu koy naan am na ñoo xam ne da ngay am doom yóbbu ko bitim réew mu ànd ak tubaab yi dem ba soppi jikko di naan am na yoo xam ne daal waaye man daal la ma ciy liggéey. Mm-hmm. lii da koy sangoo mu ànd ak bàmmeelu néew bu dee. lii nga naan ko bu néew jugut naan sàngara kooku dootu doxati jëm ci sàngara mukk ba ilaa yawmi diin dama lay jox. Mm-hmm. mu ànd ak bàmmeelu néew bi nga sangoo ko lii nga naan ko. Mm-hmm. bu néew jugut naan sàngara dootoo naan sàngara ba ilaa Euh, sëñ bi ki nga xamante ne toog na plus de dix ans di naan sàngara itam boo ko defalee mu tàqali ko ak moom. cinquante ans bu ko amoon. Mhm. lii ànd ak suufu néew bu dee mu sangoo ko. Mhm. lii mu naan ko am na ci sama jigéen boo xam ne sama jigéen la jigéenu benn ministre la fii ci. nguuru Macky Sall du tudd trop. Mhm. doomam ji fii la ko yóbboon Belgique. Mhm. doom ji mujj gi ànd ak tubaab yi di naan di naan di naan ba ñu référé ko mu ñëw fii. Mhm. keroog ba mu ñëwee fii ma jox ko ko su ma juumut suy mat une semaine ci lay toll. démb la ma oo fii na ma ñetti fan a ngi ni génnut kër gi. ñetti fan a ngi ni génnut kër gi. loolu moom bu ma la ko joxee comme néew bu dëj. sàngara moom da nga mel ni comme néew bu néew jugu dem naa sàngara. yow dootoo Euh, yaa ko mën ku ko mën ak ku koy jéem duñu benn waaye sëñ bi euh, ki nga xamante ne bëgg naa fay coow euh, socc bi nga xamante ne yaa ngi koy joxe. waaw socc bi de moo nekk nii. Mhm. kii dinaay wax ne ku doon ku doon par exemple tey jii. <laughs> Eh. fay wax ak socc bokkut. fay wax mooy ko dugg ci coow fay wax mooy koo xam ne dafa dugg ci coow bu rëy mhm. bañ war koo tëj pëlis mhm. wala mu def mbaboor goo xam ne ñëpp a koy mbom <laughs> def njombe def njombe bëgg ñu fay wax ji <laughs> kooku moom sëñ bi tee ngaa bañ tax nit def njombe ba pare daw ñëw fii nag koo xam ne da nga def loo xam ne wala nga def nit dara nit nangam par exemple boobu moom dama koo ba mooy nit yore la xaalis nga bëgg ñu fay wax ji ah. loolu moom moo ko defee nit ki dootu tudd xaalis bu wala coow loo mënti dudd ma def la may def taal ko mm. bam jëppit ma jël saafara faye ko wax jooju kenn du ko tuddi doon mbamb sax kenn dootu la mbamb. Mhm. socc bii nag moom danaay wax ne képp koo xam ne da nga nopp jigéen. Ah. di wax ak moom. Ah. xam nga jigéen ñi tey ci temps dañ leen nopp wax ak moom ñi lay jaay affaire ak nangam. Ah. waaye boo ko soccee wax ak sa coro. déedéet dootoo ko. jigéen nag bu ko soccoo. boo waxee sax foofu tamit déedéet doo ko. dootu la ba jox ma 50 000 sax mu ah. di wax ak nit ci kaddu. Ah. ma seq bi dara. Ah. ñu dem ba ma war ma koo jox mii xiini ngaa naag naam danaa ko jox du ma ko jox ma soccoo li wax ko lu ma koy wax. Hmm. jàng ci lañ cey jàng def ko mu soccoo ko bu la waroon a jox million boo ko laajee million bi dana la ko jox. te dafay dëgëral kaddu. Uh-huh. daf lay dëgëral kaddu te képp ku koy sontoo bun néew na bunt boo fëgg. Uh-huh. di fa lijjanti dara. ka ngay jàkkaaroog na ko la ma doon lijjanti mu ciy wax xam nga mm-hmm. nit mën na déposer dara ba dem ba jàkkaaroog ku ko war a signé wax ak moom mu naan ko tey suba tey suba mm-hmm. waaye boo ko sàccee boo ko soccoo jàkkaaroog moom booy wax li nga wax force da koy def farul mm-hmm. force su da koy def ayca socc bi du ñàkk ma yóbbaale ci bu may dem ndax ma bëgg lijjanti bëri na ñi seen far yi doxaan sax mën nañ ko mën nañ ko wut bu ñu ko soccee seen far yi ñoom rek lay wax ak dootul wax ak kenn ak ki ak ki jëkkëram di doxaan damay ragal sëj bi ñu songanoo la nag socc bi manqué ci réew mi waaye balaa ñuy tëj rek ñu wax ci li nga xamante ni itam moom mooy jaaro bi nga xamante ne yow yaa yaa ngi koy joxe muy jaaro boo xamante ne sax dañ lay bàyyi nga wax ñu ngëneel yi nga xamante ne moo ci nekk ba pare waaw jaaru bi de bëri na ngëneel toujours nag man bokk ma ak sëriñ si nga wax ne jinne may jox sama jaaru raba may jox sama jaaru man sama jaaru xam-xam la maa koy liggéey mhm. ñaari façon la mhm. benn bi képp koo xam ne takk nga ko mhm. di nga am wërsëg di nga am bayre di nga am xéewal alal dina la yomb te néewaana timit nga dem ci buur wala boroom daraja di fa sàkku dara te ko am taf dëkk boo man di nekk timit teraanga gañ fay séddale kenn du la ko ëppale mm. benn bi moom pour ubbeeku la rek mm. ak wërsëg ak xéewal naataange beneen bi nag képp koo xam ne takk nga ko réew moo man di dund mm-hmm. réew ma man di dund da nga fa dund ba xëy génn àdduna doo dugg kaso mm-hmm. da nga fa dund ba xëy génn àdduna doo daanu ci gàcce mm-hmm. da nga fa dund ba xëy génn àdduna ba problème waroon a am nga takk jaaru bi da ngay jug problème am fa wala da ngay ñëw na lan moo xewoon fii waaye doo fekkee gàcc doo kenn du la gàcceel kenn du la tëj te kenn doo gis te tamit ñaareel boo ko takkee mu nekk sa loxo. Mhm. nit du la liggéey mukk mu jàpp. Euh, sëñ bi kon mën nañ na jaar boobu itam kaaraange la. kaaraange la complet la ci lépp. Mhm. xam nga am na ñoo xam ne duñ sangu waaye mën nañ a takk. Mhm. jaaru. ayca am na solo yaakaar naa ne liñ fi waxtaanee yëpp am na solo sëñ bi balaa ñuy tëj rek euh, ñu wax ci li nga xamante moom mooy actualité en tant ni ñu ko waxee saltige nga am kàddu ak euh, borom ñaari tur boobu lee nga xamante ne kon génn na àdduna ak fa mbir yi teereew ak ak euh, jëf ji nga xamante ne kon mujj naa am ca kawam tey jii rek en tant que tey ki nga xamante ne comme ni ñu ko waxee am nga kàddu ci réew mi boo ñu doon wax rek ci li nga xamante ne jàng nga ko ci mbir moomu lan lay doon waaw jëf ji de ñaaw na te jëf ji tamit ña ko def xam nga euh, xamuñ ci sariya ak ci sunna dara. Mm-hmm. ay xale yu mer la demee seen fugg ñooñ kenn mënu leen a àtte. Mm-hmm. te axlu luut yooyu bu ba nga xam ne moo ci moo ca dëkk ba nekk fa imaam boobu am na sañ-sañ moom. Mm-hmm. ne kii kenn du ko suur ci armeel yi. taal moom euh, dama koo ñaawlu parce que taal li tax mu bon benn boo taalee ka ngay taal. parce que bu fa desee mën na indil nit ñi feebar. Mhm. boo ko nokkee feebar mën na cee am. Mhm. wala yow ma koy taal yenn yenn matières yi bu jugee mën na cee am feebar. Mhm. dem neen ba ci xaabila xaabil sax ba mu rayee nit ki yàlla dafa yefal yebal baaxaañ. wan ko ne ko kii nga rey ni tey wala kuy mu yebal ñaari baaxaañ ñi rayante ba suul mu wan gas gas ba kenn ki suul baaxaañ bi foofu la ñu wanee nit doomu aadama na bu dee dañ ko war a suul. amaa lam def moom amul kenn kii doomu jullit ku ci d'accord loolu laa moom loolu la wala du loolu man loolu xaw ma ci dara parce que xaw ma ko woon damaa dégg rek te man sama aqida sama pas-pas ci diine ak sama pas-pas ci sariya daf maa may ci maandu parce que wa ma sayyidna illa bi maalim naa nit ki lépp looy seede na nga fekk mu doon loo xam ne da nga xam mhm. moom la borom ñaar tur la du borom ñaar tur en tout cas daal lakk moom dafa ñaaw. Mhm. waaye nag nit ku nekk imaam ba nga xam ne moo nekk ci dëkk ba am na sañ-sañ moom. Mhm. ne kii fekkee dañ dafa am jëf yoo xam ne da ko daan jëf te jëf yoo dëpput ak mhm. ko suul ci almeer moom kii na waaye ndaw ya ko def da ne ndaw ñi ñu mer la rek te ku mer. buy def dana rëccu rek te la muy def da koy rëccu waaye en tant que nit doomu aadama di dund. ak jëf ju mu mën di jëf ak bàyyi moo xam lu mu di doon man mi sax su ma amoon xar sama kër bu dee dinaa ko sutura suul ko nit nag ku mën doon moom ko suturaal suul ko waaye lakk gi moom. mais suul bi ñu ko suul ba pare ñu wëlbatiku sulliwaat ko am ñu bëri ne Sénégal dafa mel ne nit ñi nekkatuñu ay nit parce que le fait que ñu suul nit nag ba pare ñu demaat ba ci armée yi sulliwaat ko ba pare wëlbatiku taal ko euh, nekkul jeunesse boo xam ne dañoo mer rek est-ce que nekkuñu di perdre suñu ay valeur bëri na internet ba mu amee ba léegi da gis na valeur yu bëri dafa perte lu nit def caméra ko. Mm-hmm. te xam nga doomu Euh, li tax yàlla am mën naa wax ne mën nga dund cent ans doo dégg na njaalo li tax loolu. Mm-hmm. mooy critères yi tax yàlla wax na nit dafa njaaloo kenn mënu ko am. Mm-hmm. ñeenti nit ñoo xam ne bokkuñ fu ñu jugee ñëw fekk góor ci kaw jigéen. Mm-hmm. sutura moo tax. ba internet amee nag léegi sutura yi dafa xaweeku ko lu nit def dugal nga ko ci internet xale yay def tamit dañoo demee comme li ma la wax fugg xam nga nit bu meree. moo tax yonent bi sallallahu wa sallam daan wax ne bu nit meree na dem jàpp julli ñaar rak dana tax xolam giif. réel wax dëgg yàlla kee tamit man du ma du comme li ma la wax léegi mënuma wax lii la wala laa la waaye nit koo xam ne dafay jëf-jëf ju bon daal bu dee daal nit imaam ba fa nekk am na droit na kii kenn du ko denc ci armeel yi. Mhm. waaye nag taal moom amul kenn ku ci d'accord moom wax dëgg yàlla. ci am na solo sëñ bi euh, ñu gis itam rek actualité boo xamante ne itam yaakaar naa moom la Sénégal yëpp di xaar muy combat bi nga xamante ne ngi war a ci diggante Ama Baldé ak Modou mu nekk combat boo xam ne yàggoon na waaye itam euh, li ci des euh, bëreegul ñu bëri ci ñuy yëngu ci wàll yi nga xam ne danga ci yëngu joxe ci seen point waxee rek saltige boo xamante ne macha allah boo xëy ren euh, balaa waxati déwén euh, sëñ bi tey rek boo ñu doon wax ci combat boobu lan nga ñu mën a wax. waaw combat bi de ñaar rek laa ciy wax. Mhm. combat bi moom na nga xam ne ci médecine euh, maanaam médecine sax ci mystique mystique moom daf cee am cent pour cent. Mhm. te Modou ñu bëri dañ na wax ne ibaadu la gëmatut mystique. Mhm. waaye tey la gën a a gëm mystique. Mhm. tey jii la gën a toog ci mystique. Mhm. Ama Balde nag am na benn mbagam. bu ñu wax Kumba Balde. man de lu ma koy digal. lépp lu mu am na ko jox ci combat bi te di sàkku ci moom ñaan. parce la woon ca falaay yëpp. ndaw soos moo ci boof. suñ bu ñëwaatal foofu te daal li ma koy wax. Ah, am na benn magam bu ñu bu ñu wax Kumba Balde. lépp lu falaay yore woon. moo ci boof. Mm-hmm. lépp lu mën a bégalee ndaw soos na mm-hmm. fexe di ko bégal. Mm-hmm. te xam na combat bi moom mystique cent pour cent la moom combat bi moom. Mm. mystique a koy daan loolu moom laa la ci mën a wax. Euh, sëñ bi tey boo ñu doon wax ñaari mbëri kan moo jékku ci mystique. cinquante cinquante. jamono ji moom cinquante cinquante. combat bi ba léegi dafa lëndëm de. dafa lëndëm sëriñ bu la ci man di wax kii moo jekku ci bakkanam la ko teg waaye combat bii. mis mm. cinquante cinquante la. ndax day gaaw wala. Ah, day gaaw a gaaw moom ko allahu ahlam waaye mhm. li ma xam xam man du ma sëriñ boo xam ne damay wax lu ñu waaye li ma la mën a wax moom mooy cinquante cinquante la moom mhm. te mystique mystique da ci wari ah combat bi daal en tout cas moom ba lan ba bañ na suba la combat bi mhm. benn sëriñ mënu caa wax lu leer <coughs> mu mel ni sax <coughs> excusez-moi mu mel ne sax euh, dégg for nañ si wowu bay comme li ñu wax ñu ne nit mën na sax jekku avant combat yor ndamam ñu ñëw ba si jouru làmb ja ba si stade ñu foqati ndam li ndax ñaan mën na loolu mooy mooy dëggal li ma la wax ni combat bi ba ba ba na suba la combat bi kenn mënu la wax li daan la koy daan ci jour ba lay doon mhm. te jour ba lay doon ci ñoom ñaar loolu mën na am nit mën na man na moom ndam comme ci football da ngay gis ne équipe bi moom moom ndam mhm. ñi dem ba ci bi sëriñ bi soppi li soppi bi ñee gagné mhm. loolu dafay gis nga nit bu xamee. Mm-hmm. bu xamee pour mu def mu yomb dafay am. Mm-hmm. waaye nit bu xamul day tëñëx tëñëx rek baatin amul lu mu mënu ci àdduna. Mm-hmm. Euh, euh, sëriñ yi naan diw mooy daan nag. bës. Mm-hmm. bës rek mm-hmm. xam nga nit bu xamul sañ-sañ lay waxee mm-hmm. te sañ-sañ comme xale yi nga gis ñi defee sañ-sañ nit bu xamul tamit sañ-sañ lay waxee kii waxee sañ-sañ nag du jug ci gàcce waaw loolu la rek ay ci am na solo euh, kooku mooy saltige Mouhamed Diop euh, kontaan nañ si waxtaan bi nga xamante ne sikk nañ ko ak yow di wax ne njëriñu kase lañ fi jëlee dañ lay bàyyi nga tàggoo rek ak ñi nga xamante ñoom ñooy mbokk internet yi euh, su ko defee rek nga fàttaliwaat adresse bi numéro bi dina jàll à de l'écran waaye comme niñ koy waxee rek mbokk yi waxtaan yem fii dina a yaatu incha allah parce am na ne war nañ ko développer bokk na ki nga xamante a jubóole ak borom këram juboo ak njabootam na ci yeneen ak yeneen yoo xamante ne société bi dañ koy yittewoo incha allah day gën a yaatu rek sëñ bi ñu bàyyi la nga tàgg tàgg tàggoo ak ñi nga xamante ñoo la doon euh, seetaan si ñoo lay seetaan ci fi nga xamante ne moom mooy Medina TV su ko defee ñu joxante rendez-vous très prochainement. jërëjëf waa nga wax ju solo dëddale moom man duma ko def waaye nopp moom képp ku bëgg nit mu bañ. Mhm. boo ñëwee ma noobal la ko ci semaine mu topp la comme xaj ni muy toppee borom. ayca <laughs> ñu tàggatoo nag. Mhm. di ñaan yàlla suñ doom yi nga xam ne ñu ngi jël yoon yi ni gorogra bi di dem. Mhm. képp ku ci am yéene pour dem ak képp ku dem li tax ngay dem mooy tere sa waajur rek. Mhm. yàlla bu ci kenn am benn tolof tolof yàlla na leen yàlla may ñu dugg. Mhm. te buñ duggee tamit yàlla na leen fa teraanga mhm. ñi nga xam ne tamit ña nga fa te amul kayit yàlla leen yàlla may kayit goo xam ne ànd ak xiiwal goo xam ne daneen mën a ñëw teral seen waajur yi. di ñaan ci réew mi jàmm yàlla na yàlla def si suñu réew jàmm. yàlla na yàlla def si suñu réew jàmm yàlla na yàlla def si suñu réew jàmm dérive yi ngay gis ak yu ñaaw ak yu bon yëpp ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla delloo si xel yi ba teg nit ñi ci yooni siraatal mustaqim bu nit ñi tegoo ci yooni siraatal mustaqim rek ñëpp dana nekk ci jàmm wa ma zalika ala allahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mm-hmm. ayca mbokk yi mi ngi noonu kon euh, kooku mooy ki nga ne rek mooy saltige Serigne Mouhamadou Diop nee naa la lépp loo xamante ne waxtaan nañ ko fii rek loo xamante ne njëriñ la pour yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy topp su ko defee mbokk yi rek da ngeen di wéy di partager di abonné waaye di baax baax ci li nga xamante ne moom mooy Médina TV su ko defee rek dara dul na ci si information euh, d'ici et d'ailleurs waaye rek lépp loo xamante ne euh, jàngoro la rek wala muy tawat wala ngeen yittewoo ko ci ay service su ki nga xamante ne moom mooy saltige Mouhamed Diop numéro bi dina jàll à bas de waaye yéen ñi nga xamante ne yéen bëgg a wane seen bopp wala ngeen fësal seen ay produit bëgg def comme moom wooy leen di woote rek ci li nga xamante ne moom mooy numéro commercial bu Medina TV su ko defee fépp foo xam ne waaye mi ngi fa rek dinañ ñëw fekk si la fa euh, pour plus de visibilité d'ici là euh, wooy leen di abonné rek comme ni ñu koy waxee te ngeen nekk si jaamu jaa ngeen jëf